bi contrôle bi mi ngi wëyandi euh, fële ca conseil constitutionnel euh, ban jàngat nga am par rapport ak ni nga xamante ne ni noonu lay doxee. waaw xam nga mm, yaa ngi doon def sa revue des titres euh, si source A du woon la consolidation mais la consolation. la consolation. waaw consolation bi dañoo jàppoon ni daanaka ñi dajale seen parrainage yóbbu ko conseil constitutionnel. Mm-hmm. li xam nga caisse de dépôt et consignation. ils sont plus de.

donc l'ol c'est bon à souligner Moi deuxièmement euh, nous avons xam ne parrainage Nous valider dossier par le conseil constitutionnel Nous avons 5% de l'électorat le parrainage état à mon commun. c'est une caution Si nous amul 5%. 5%? c'est ça que dit la loi il faut avoir 5% des suffrages exprimés pour nous donner la caution boo amul sa caution ñak nga ko dugg na si état. lolu après élection lolu après élection lay doon après validation. Mm. mais avant validation. Mm-hmm. supposons tay jii Bachir yobu dossier am ñu mu jàll parrainage ñu dem liste conseil constitutionnel génn Bachir jàllul dañ koy delloo parrainage am. Mm-hmm. xaalisu caution ñi ñu éliminer par le parrainage dañ leen di delloo xaalisu caution lolu il faut mu leer muy benn deuxièmement pour que ce dossier parrainage puisse on te demande minimum 44 231 et euh, et maximum 58 975. C'est neuf cent à 0,8. mais pour mu bu le dossier le premier élément qu'on recherche c'est de savoir est-ce que Daoud amène 2000 parrains dans au moins 7 régions. Parce que c'est ça que dit la loi, minimum 2000 parrains dans au moins 7, régions. D'accord. la nous avons a nous nous le nombre minimum maintenant si Daouda a des doublons internes qui mhm. du ko compter si Daouda a des doublons externes on peut ko régulariser est-ce que est-ce que le concept de doublon interne et externe. doublon interne c'est Bachir Fofana dafa parrainé Daouda. ñu bind Bachir la liste Dakar bind ko la liste Thiès. d'accord Lors doublon interne. ok Lors doublon interne bu boobaa que koy considérer soit à Dakar soit à Thiès mais ne vous pas considérer Lors yoon. Mm-hmm. doublon interne. maintenant le doublon externe c'est Bachir Fofana dafa parrainé Daouda parrainer monsieur Ali monsieur euh, monsieur Lo mm-hmm. bu boobaa ki njëkk a déposé mooy jël parrainage bi mm-hmm. ki mujjee déposé moomul parrainage bi bu boobaa nag dañ la naan monsieur Lo Bachir mi la parrainé woon son parrainage n'est pas bon régulariser ko mm-hmm. mooy ngay dégg ñu ne la régularisation des doublons li ngay dégg noonu ñu ne Idrissa Seck war nañ ko defal douze mille xaw ma euh, parrain à régulariser donc loolu mooy lu leer donc loolu la ñuy saytoo parrainage bi maintenant nak yàgg naa ko wax defe naa fii laa toog wax naan y a des entrepreneurs du parrainage fii laa ko waxee mm-hmm. parce que Sénégal loo indi lu ne rek nga gis ay sénégalais yoo xam ne tàppale lañ ci jiital tàppale weesuwul bopp bopp koñ bi dajale euh, signature maire yëpp dajale signature pas yëpp des fois sous des prétextes fallacieux day ñëw fekk monsieur Diaw wa dafa am a finance jox sa carte la wax doy ñu carte dem dem Yata et conséquence quand les gens arrivent au conseil constitutionnel mu ils se retrouvent léegi foofu monsieur Fofana bu ñu la ko signature naka lay demee. mais c'est parce que réalité yow gars di bind ils imitent ta signature dañuy top kii bi. dañuy imiter signature bi. wala griffonner rek. parce que en réalité sax ñoom le conseil constitutionnel il regarde plus la clé USB que que les fiches déposées. ok loolu moo waral loolu noonu. léegi nag bu demee conseil constitutionnel. Mhm. boo waroon bind yata. Mhm. avec deux T. Mhm. nga bindee ko benn T. et que toutes les autres informations sont correctes. on le considère pas comme bon. irrégularité irrégularité lay doon xaw ma ndax yaa ngi gis li may wax. boo doon bind aali xujja. Mhm. au lieu nga bind xujja avec KH nga bindee X. Mhm. boo demee du jàll. d'accord donc loolu mooy waral des fois nga gis ñu ne la doublon interne doublon externe ak autre motif. des fois mun na nekk dañoo juum ci date de naissance bi. Mhm. mun na nekk dañoo juum ci lieu de naissance bi mun na nekk moo ça demande un sérieux un travail que malheureusement beaucoup ne font pas beaucoup d'hommes politiques doublent nañ ci parrainage sans comprendre l'ingénierie pour war le parrainage mm-hmm. et conséquence de jural situation yi maintenant c'est très bien je man parrainage nous baax la maintenir nous devons ñu parce que améliorer ce parce que loolu mooy ñoŋal la démocratie imaginez nous fi dem yëpp déposer ñu dans une élection où on doit choisir 93 bulletins mais élection boobu xana ñaari fan lay doon parce que le temps de prendre chaque bulletin nga war a dem isoloir pour tànn dellu le vote serait très ralenti mm-hmm. kon nag parrainage bi ña ko bañoon démb gis nañ njëriñ li tey on attend maintenant de voir après élection n'est-ce pas monsieur Lo chaque fois qu'il y a une élection après il y a une revue du code Nous xool lan moo fi nekkoon lu baaxul nu koy parce que le code il est a ko defar mm-hmm.

moo waral nga dégg Bougane Gueye dem ñu ne dañ ko tere moo waral nga dégg Khalifa Sall dem ñu ne dañ ko tere moo waral nga dégg Anta Babacar Ngom dem mu ne dañ ñoo dóor ay bombe alors que mm-hmm. lacrymogène kese la ñu leen sànni donc loolu yëpp c'est parce que la loi n'encadre pas la partie collecte de signature mm-hmm. kon loolu dañ ko war a intégrer dans le dispositif buñ ko intégré wul il faut que chaque fois que nit ki war a jóg wuti autorisation mm-hmm. affaire yooyu noonu te boo respecté wul autorisation le préfet est en droit de te euh, de te refuser l'accès ou la procession que tu vas faire. Mhm. donc Ben, amélioration pour man amélioration pour un a am ci parrainage bi. ñaareel bi wax naa ko fii nañu fexe ba ñii di dem dagan baatu askan bi. balaa ñu leen jox fiche DG, e, ñu dem fay moitié caution. waaw on a vu que que que am 11 onze candidats qui ont été nii dañ leen parce que fayuñu caution. caution mais qu'est-ce que la loi électorale prévoit. non la loi dit article 121 du code électoral il y a neuf pièces à fournir pour valider sa candidature. caution ci la bokk. conseil constitutionnel ñëw génnee arrêt mu ne ku motalul lii article 121 vingt et un bi wax du laal sa dossier. Badio Camara bis bu ñu def tirage au sort bi mu rappelé ko mu ne ñii motal pièce ñooy jàll ki motalul doo jàll kon xam nañ loi bi wax. et dinañ respecter le loi bi wax j'espère. maintenant nag lu si nekk nag dafay laaj ay amélioration donc moo tax ma ne tey moitié caution war nañ ko joxe balaa ngay jëli fiche mhm. parrainage bu boobaa tu n'auras pas 260 personnes qui dem jëli fiche mhm. ndaxte tey jii bu dire la 15 millions, joxee quinze millions boo motalee parrainage 15 15 millions Bon boo le parrainage tu perds tes 15 mhm. millions tu vas y réfléchir à deux fois ah avant d'aller là-bas donc et troisième proposition moi le parrainage par le digital ndaxte te jii ni parrainage par le digital ça nous éviterait des doublons imaginez à l'UNSAR en plus de 20 000 25 000 Blancs. à à son tous ces parrains dans toutes les régions ne sont pas valables. Hein? Il n'a même pas validé 2 000 signatures. Il a 44 000, 2 000 Donc, le lieu, c'est parce qu'effectivement, il nous faut revoir le système, mais il faut le maintenir. Euh, donc, euh, monsieur Lo, le parrainage, euh, ça se poursuit, il y a conseil constitutionnel.